inshallah mbokk ñi batay ñi ngi dess wax xol suñu soble bi ni lañ ko bëgge won mu xawa a ni nii macha allah léegi bu dooree ni rek après ci ngay jël sa tamaate ndang def ci biir mhm. tamaate bi dañuy ñëkke def ci dina amat benen boîte tamaate bu ma ci doli pour mu gëna xaw a dulse Jadi daal jëlaat dulu sih, dolli ci pour mu toujours na nga wàññi tuuti kii bi waaw yëngal ko nag bàyyi mu xaw a parce que dafa war a dogaat nii carrément so mu lay jàpp bu baax a bi nag moom kenn ku nekk nag yaa xam sa góob bopp kaani bi poobar bi kimage bi affaire yooyu xam nga mais na comme danga koy danga koy saaf nii lakk ko ba mu euh, rosi ko ba mu dog dafa laaj tuuti nga tëj ko ma yàq ko tuuti mhm, ba pare di ko contrôler ma yàq ko ba pare di ko contrôler waaw boo ko defee nii wàññi ko tuuti mu yem en même temps xam nga tegoon nañu suñu diw bi mi ngi tàng léegi mën nañ xool suñu akara bi mu filmé woon teg ko sànq mi ngi nii macha allah daal lay jox résultat bu baax nga mën a jël nag ndànk di defar sa kii yaa xam nu mu la gënalee bu mag bu sew bu kii parce que kenn ku nekk ak nu mu la gënalee rek mhm. defoon nañ fan yi croquette euh, lentille daanaka noonu lañ koy defee allez uh-huh. dafa mel ne suñu dawlin bi des na moom dawlin bi dafa war a tàng tuuti waaw uh-huh. mi ngi jóg uh-huh. voilà ñu ngi koy def di ko def ndànk par ndànk mu nekk akara yi nga xamante ni si mën na bañ a sew comme mën na bañ a digg en même di contrôler sa salsa bi fu mu toll mooy soos bi gis nga ko daal mu ngi nii rek ñebbe rek ngay dëbb li ci xaw a sonle tuuti nag mooy ñebbe ba defar ko moom dafa xaw a sonle tuuti pour dindi kii pour dindi xob yi ba mu set waaw xaar ñu xoolaat fële suñu suñu soos bi nu mu def moom liñ ci bëgg rek mooy tamaate bi mu dog bu baax parce que tamaate bi gis na ni ñu di joxe bu baax macha allah leen fàttali nag ni pour saaf kii bi moom tamit feu du nekk feu bu mag daal feu yem lay doom parce que dafa war a ñor ci biir moo tax ñu def ci tuuti be kam poodam pour bañ pour bëgg mu xawa ki mu xawa noy et puis mu gëna gaaw ñor ci biir ñu ni rek ni lañ koy jappé diko def ndank par ndank lepp bëgg ngeen kontaan ci seen canal ci am Tey toujours rek di leen indi recette yu gën a bees voilà akara nag moom ku ne xam na nu ñuy defaree akara waaye tamit nekkul nii dafa gaaw a kiiwal nag léegi boo demee ni gis ni mi ngi wàcc yokkal tuuti feu bi parce que laaj na feu bu xaw a sori tuuti te moom sabooram macha allah bu xorom bi yemee rek hmm, mu am tuuti bi comme poudre jeex na da def say akara am na ñu bëgg bu sew am na ñu bëgg dijj comme nima ko waxé won légui ya xam nu mu la gënalé rek légui ñu déllu delluwaat tuuti xolaat suñu sauce bi diko contrôler parce que day da fay baña da fay gawa daw fi ni dañu soxla tomate bi nga xamante ne mooy tomate bu bu ki bi concentré bi boobu dañu bëgg mu dox ndax du weex bu doxul rek day weex macha allah. kon nag nii lañ ko defaree mère akara ndeysaan su ma xel dem na ci suma suma benn tante <laughs> yaa mari ndeysaan yal na ko yàlla yërëm moo ñu doon jaay akara bi ñuy nekk xale macha allah yang ini en même temps ngay contrôler sa sauce defar say fataaya say kii say akara xonqaay bi tam nu la nexé aussi man maa ngi nii dama koy dindi parce que man bu bu xaw bay wéx tin moom moo gënal mais amna ñu xam dañ koy bayyi ba mu xonq nga dindi hmm bi tam comme dañu bëgg tamaate bi baña sax moo tax ñu ko bàyyi ba mu gën a dox waaye dafa laaj contrôle foo toll rek parce que tomate dafa gaaw a dal gis nga nii waaw xoolal première ma génne macha allah dina buena pinta en même temps mun ngay continuer bàyyi sa kii tamit muy dog tamaate bi muy continuer dog nga continuer yow defar sa ay voilà comme dëwlin bi xaw na tàng nii léegi mën nañu wàññi tuuti. pimpam la rek comme restaurant moom ku euh, wàññi kon dama juum da nekk genre pimpam di contrôler fële di contrôler fii ay gaawal liggéey daal boo ko tàmmee sa liggéey da lay gaawal. ne ya xam sa quantité nu muy toll ak noo ko bëggee lu mel ni lii tey boo ko defaree xam nga mënoo ko lekk benn fen mais mën nga ko dugal ci frigidaire bi suba wala gannaaw suba mu demaat tam même congelé mën nga ko congelé boo ko soxla nga génne ko mu décongelé nga continuer am sa kii léegi sama suñu kii bi ñu ngi nii boo xoolee nii xam ne dog na tamaate bi dog na dootul wex léegi nag kon da ngay jël sa tuuti ndox rek def ci parce que warul nekk lu nga xamee ni day wow ba ma ëpp dañ ci def tuuti ndox du bëri nag voilà comme xaw a bàyyi rek léegi ndox mi yaa ko def après boo gisee ne tamaate bi macha allah dog na ba amatul benn euh, caf ka weex bi ñuy weex après mën nañ yokkaat trophée mhm. léegi bu ñu defee suñu tamaate ba nga xam ne kii na ni da mu boole woon nañu fii suñu benn kib ak euh, kamoon comme man dama xaw a sopp kamoon lool ci samay togg waaw ñu def ci benn kur du poobar poobar bi nag ak kaani bi bu ngeen seetloo tey jii laaluma ci dara kaani parce que am na <laughs> xale yu taxaw fële naan ma naa de de piquante dinaa wax ni ma kaani bi naa ko yemale so xorom bi aussi comme def naa benn cube da ngeen di yemale rek tuuti xorom mhm. tuuti mu bon bañ a bëri ça dépend ci yow ni nga ko bëggee rek xorom bi ni mu kiiwee ak kaani bi tam akara nag dégg naa wolof ni naan ku bëgg ku bëgg akara da ngay ñeme kaani voilà comme sax boo ko kaanee ba mu sax wàññiwul dara mais man personnellement man maa bëggul kaani bu bëri en plus euh, xale yi. ñoom taxul ñu bëgg kaani lool voilà bu ko defee mën nga def kaani ba mu saf nu ko bëggee dëbb sa kaani bu bu tooy bi wala bu kii bi nga def ba mu xeeñ wàññiwul dara mais ça dépend ni nga ko bëggee rek mhm. def nag nga bay ni muy xonq rek ndank muy fer ndank amna sama touti vinaigre aussi da ci demal bu la nexe nga def sa citron limon waaye man vinaigre laa ci def tuuti booy xool daanaka pare na boo gisee yëngal mi nii xaw na bëri mais moo lay dimbali ba affaire bi du dar parce que day ko day ànd contrôle simple day ànd contrôle foo toll sinon day dar ci taat bi te bu daree dafay safal sauce bi sauce bi du def koy jox beneen sabor beneen goût bu bu xaw a naqari daal mhm. en même temps comme ni ngeen ko gisee maa ngi nii di continuer di xool suma ay akara mbokk yi mag ngi leen nii ma leen indi doon tey muy akara macha allah kasi leen ñu terminal gisoo ñaari façon akara yii nii benn bi dama ko bàyyi mu mu doore mhm. bi ci des ma bàyyi ko mu weex sans dépend ci ci doomu aadama yi kenn ku nekk noo ko bëggee waaw suñu soos bi nga xamante ni bés ki nag moom lañ defaroon sauce bi du nek sauce bu nga ke si da fay toy da fay xawa waw tout hmm legui mom la koy accompagner ñoom ñaar sha allah ah di len dokkel bu ba di len wax ne tay ji akara len andi lo ci sen canal eh, Khady Thiam tey mbokk di len dokkel lu bari bari bari ah à bientôt allah ñu indi leen yeneen plat yu nga xamante ne que si yuy jaar yoon lay doon voilà léegi akara bi mu ngi nii boo ko daggee ci biir day nekk bu weex tàll du am dara ci biir mais nag comme sabooru ñebbe la ñebbe moom ku ko gis xam ne macha allah dafa baax ci ci yaram ba pare lu neex la mhm. bu la neexee nga def ko comme nii mu xonq lool bu la neexee nga bàyyi ko mu weex. en même temps nga boole ko sa soos am na ñu nga xam ne soos bi xale yaa ngi naan ma yaay soos bi ndax doo ko wala ñu ngay na ñu nga xam ne koy def nii boo xaree ak kii bi fataay bi danga koy def nii ci biir mhm. rico am na ñu nga xamante ni si dañuy fekk fataay bi comme ni mu tegee nii rek nga ni nii sa kii dugal ci biir rek def ko nii jël soos bi def ci biir voilà mu mel ne genre bokkaadi joo bu ndaw rek ñi lañ koy lekkee mhm. waaw soos bi ku li ma lay wax rek euh, ku ku mu neex nanga ko kaani ba mu saf ku mu neex nu mu la neexee rek nga defee ko mbokk yi lii laa leen indiloon seen njogonal Ndeye yi merci beaucoup à bientôt incha allah